daleen ak jaam ceebu jën day ndekete buñ ko toggul togg gu baax mën naa indi ay jafe-jafe ci wér-gu-yaramu doomu aadama ko wax lu ni mel nutritionnaliste bi di Ndeye Khady Dia Ndeye Khady Dia moo xamle lu ne mel neen day ceebu jën bi nga xamante ne bi dañ koy jëfandikoo dañ ko war a togg togg gu jaar yoon lu ko mooy rek mën naa créer wér-gu-yaram te itam nag comme mooy suñu plan national te itam gis na ne Sénégal moom la ñu gën a bëgg kon nag war nañoo gën a waggar ca togg ga nga xamante ni bi jigéen ñi moom la ñu koy togg Pape na mu defoon ca tabaski gi di maye ay nit ci mbedd mi di leen ko jaay ci njëgu 1000 francs dafati na ko ci tamxarit bi ay ginaar la yor rek ne fukki dërëm la koy jaayee ñetti ginaar 100 francs Pape Sidi Fall loolu yi day daf cee jubloon yoo xamante ni daf ko doon def ngir jagleel ñi nga xamante ne bi seen loxo jotul seen ginnaaw mu may leen ay ginaar ngir ñu mën koo jëfandikoo ci tamxarit ji Pape gis nañ ko muy wër rek ci mbeddi Ndakaaru yi di maye li nga xamante ne bi mooy ay ginaar waaye loolu lépp nag def ci àndoon nag ab sponsor boo xamante ne bi moo ko doon dimbale ngir mu mën a matale yéeneem ci wàllu social nag mu daal di dimbali ay borom kër yu bare bare bare ci mbedd ndakaar yi wax ci Ndeye Gueye mi nga xamante ni bi wax na diggam ak Papa Boy Djiné nee na day li waral constance bi li waral diggante bi yàgg li waral coow li saa su nekk mënul ci diggante bi dara mooy dañoo bëggante dëgg-dëgg dañoo bëggante te itam du ñu réeroo lépp dañu koy waxtaane suñu biir dafa ma respecté waaye itam man ma jox ko cër xam ne itam soxnaam laa ma jox ko cër mbëggeel gi nag moo lépp mbëggeel gi moo ëmb lépp te itam mbëggeel gi mooy fondement bi te itam mooy base bi Ndeye Jinne moo def révélation yu ni mel wax ko ci digganteem ak Papa Boy Jinne Bougane Gueye Dany félicité na Pape Alé Niang donte critiqué na président Bassirou Diomaye Faye yàq ko lu mel ni xemee waaye nag discours ba nga xamante ni bi daf ko doon def dañ koo teg ci RTS président Bougane Gueye Dany daan ne loolu day c'est la première fois nga critiqué président ba noppi tam ñu jël ko jàllale ko RTS loolu moom mu ngi fi sooga am loolu nag maa ngi ciy gërëm ak di ci félicité ki nga xamante ni bii mooy Pape Alé Niang le directeur général de la RTS def na loo xamante ni bi grandeur la moom Sénégal ba mu daj musu fee am c'est la première fois kon nag loolu maa ngi ciy kontaan bu baax a baax te yëkkati kaddu yu ni mel moo di Bougane Gueye Dany ba noppi tam félicité ko félicité ko ñaanal ko le directeur de la RTS Pape Alé Niang wax ci Bah jaxatee mi nga xamante ne bii moo fi yëkkati woon ay kaddu yu tegginuwul jëmale ko ci président Ousmane Sonko ba ñu jël ko yóbbu ko rëbas ñetti weer yam fa war tëdd Bah Diakhaté am na benn plainte boo xamante ne bi teguwaat na ci kawam ba ñu woo ko ba muy jàkkaarloog enquêteurs nag dafa nanguwul wax nanguwul yëy yàbbi ca mbir ya nga xamante ne bi mooy waa ànd sàmm jikko yi sax ñoom itam ñu koy topp waaye daal li wétéwoor mooy ba jaxate ba muy jàkkaarloog enquêteurs yi daal dafa lànk kandaare daal ne du wax ca mbir ma te itam du yey yàbbi ci fi mu nekk nii nag nga ci ab garde à vue te la koy policier nga xamante ne bi fa lañ ko doon enquêté fa lañ ko bàyyi ba léegi ba fileeg nga xamante ne bi dina mën a yëkkati ay kàddu rek jëmale ko ci moomu mbir ak la tax ñu di ko enquête mariage Ibrahima Sall di doomi président Macky Sall ak doomi Tahirou Sarr mariage ba day célébré nañu sàkku daanaka ñi yaakaaroon ne dafay am dans la plus grande discrétion yëf yi demeewul noonu aw xew dëgg la def mbooloo mu bari teew fa parmi ñi nga ne bi teewoon nañ fa mën nañ cee compter rek Wally Ballago Seck di xarit moo di Ibrahima Sall ak Amadou Sall di doomi Macky Sall Wally Ballago Seck teew na ca xew àndandoog délégation bu am ku fa teewaat moo di Modou Lo di roi des arènes moom itam gis nañ ko mu def déplacement ñëw teew ca xew wa président Macky Sall nag ñu ko ñëpp yaakaare woon yaakaar ne dafay jóge ca Maroc ga mu ne ngir teew fi nga xamante ne bii rek moo di ci mariage bu doomam ji loolu lee am waaye ka ko ca mariage ba moo di président assemblée nationale di Amadou Mame Diop moom day moo teewal président Macky Sall ca mariage waaye itam àndandoo nag bu takk ku ci mel ni Abdoulaye Diouf Sarr mi fi nekkoon ministre de la santé waaye itam àndandoo ak mi nga xamante ni bi mooy maire bu Dakar Plateau ñooñu ñëpp ña nga woon ca xew ma Marième Faye Sall mi fi nekkoon première dame di yaay Ibrahima Sall mi ngi woon Dakar kenn gisu ko fenn waaye mooy Sénégal ngir xewu doomam Ndeye faatu Tine tiiti La Lyon moom la ñu gis moom complicité bu doy ak taawam Ndeye Fatou Tine Titi day complicité bi nga xamante ne bii am na ko doom ju jigéen ji ñu ngi leen di gis ci ab vidéo boo xam ne ñu ngi ko partagé mu daal di viral ci réseaux yi daanaka ñu ciy kaf ak di wayantu li leen di firndeel rek ne Titi malgré artiste bi mu doon ku bëgg njabootam la ay tam ku fonk ak njabootam moom Ndeye Fatou Tine Titi wax ci audio bi nga xamante ne bii mi ngi circulé di audio Marie Amar jabar ci Cheikh Amar audio boo nga xamante ni bii Sénégal yi ñu ngi ko njëkk dégg déggee ci kii di Cheikh Ahmed Cissé keroog ba mu live daal di teg audio ba doon wax ci audio bi naan ki ko circulé wala ki ko moo di délégué Amar délégué Amar génne na wax ci nee na boobu day ka ko génnee du moom tey tey itam du moom ëllëg ndax moom amul accès ci téléphone bu Cheikh Amar kay fanaan ak Cheikh Amar nag moom la ñu war laaj ana audio bi kan moo ko génnee waaye li wéttewoo daal mooy ku ñuy woowee buuba di ab chauffeuru Cheikh Amar moom day njëkkoon nañu ko yónnee audio bi loolu lépp nag bés dana ñëw buuba def révélation yi ni mel moo di délégué Amar bi nga xamante ne bi doon na jàkkaarloog presse sénégalais yi nag la ñuy laajte boobaak léegi mooy kii di wax ndax Marie amaar laam du mari amaar waaye délégué ci boppam confirmel nañu ne kii wax effectivement mari amaar la fan la audio bi jógee ak kan moo génne audio bi loolu moo jaral lijjanti délégué Amar ma ngi cey teg sax naan semaine bii di ñëw famille bi ñun suñu dina ñu woote benn conférence de presse boo xam ne dinañ wax ak sénégalais wax leen ki nga xamante ne bi jëf ji moo nekk di ko jëf Cheikh Amar muy jëf joo xamante ne jëf ju metti famille bi la bu weesoo loolu itam délégué Amar wax na rek Thiamet Cissé ay kàddu yoo xamante ne bi daanaka mënee su cee jaaraat li wéttéwoor mooy amul dara lum ko bàyyil moom délégué Amar Cheikh Ahmed Cissé mi nga xamante ne bi ab vidéom fuite na génn na di ci wax di wax ne bu ma kenn weddi bu kenn wax ne montage la effectivement man la waaye nag xale bu jigéen bi nga xamante ne bi mooy lalu Ndiaye sama kër la ñëw ñu seq la ñuy seq ba noppi muy vidéo vidéo ba nag nan la def ba génn loolu yi duma ci wax ndax mbir la moo xamante ne bi ma nga nekk ci loxo yoon yoon dama koy bàyyi waaye bés ngi ñëw dinaa defaat révélation wax leen effectivement yëf yi fu mu jógee waaye comme dafa nekk ci loxoy justice fi mu nekk nii mënaguma cee sori ka yëkkati kàddu yu ni mel moo di Cheikh am Cissé boobu fekk na Kaliphone Sall ak ki nga xamante ni bii mooy Adamo ñoom ñëpp rek ku ci nekk yaa ngi jubile ci li nga xamante ni bii moo dal Ahmed Cissé maam Ndiaye Savon nee na du moroomu benn jaaykatu diw ndax fi mu nekk nii moom dëgg-dëgg am milliardaire la ka ko doon interviewé mooy Mbaye Kouthia ma jàkkaarloo woon ak moom maam Ndiaye Savon ne dëgg-dëgg fi mu nekk nii su ma la nëbbul dëgg ay milliards laa nekk koo xamante rek dafa nanet lay wuyoo. koppar bi ko war a sauver mu toll ci cent de francs CFA ngeen di gis image sur Feeling Dakar TV ba tax na askanu Sénégal li ñuy sàkku li ñuy ñaan lenn képp la ñu jàppale nanet mi mu am tan ci nu mu gën a gaawee ba mën a sax dellu ci li nga xamante mooy yitteem à travers ma voix Feeling Dakar TV mi ngi ñaaneel nanet tan waaye itam ñi 88 millions de francs CFA pour mën a nga xamante ne rek mu mën a am tan gu baax a baax a baax ba tax na numéro téléphone yaa ngi noonu affiché pour képp koo xamante ne bëgg nga jàppale ki nga xamante ne moom moo di Nanette jërë ngeen jëf del déglu yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people ngi Feeling Dakar Feeling Dakar nos plateforme